عبد الرحيم مرحبا يا جراري باي عبد الرحيم مرحبا يا جرري لينغا جاب دفاسل خليو يو يبقناو باي عبد الرحيم مرحبا يا جراري والله باي عبد maa ngi leen di ku nekk sa tur ak sa sant te di leen jaale suñu maam ju baax jii dem yàlla fu mu fu mu jugee yàlla ko fu mu fu ko gënal fu mu ku baax la lool ku bëgg ay njabootam ku fonk ay ay njabootam daal kum gis daal taf la ni boppam ñu koy ñaanal daal yàlla ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana yu gën a kawe suñu maam moom bëggoon nañu lool manqué wuñ dara tiituñu dara rafale dara waaw bëggoon nañu lool waaw xanaa muñ muñ rekk muñ ak doyal waaw ku baax ku bëgg ay njabootam instant yi kenn mënut a wax si moom ndax xol yëpp a fees ñu koy ñaanal daal fu mu fu mu jëm noonu gënal ko fu mu jóge waaw ndax ku baax la woon ku bëgg ay nit ku fonk njabootam waaw. waaleykum rahmatullah ngi nuyu sama bàjjen fi toog ak sama yaay yi di nuyu sama ndijaay yi ñoom ñëpp di nuyu maam As moom mi fi yàlla teg. di nuyu sama tànta yi ñoom ñépp di ñaanal suñu maam ji fi jóge yal na yàlla leeral barjàqam yal na ko yàlla dëkkal ci aljana yi gën a kawe yal na ko yàlla dajaleem ak baayam ba Mame Mor Talla Seck ki nga xamoon ni daf koo bëggoon torop ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla dajaleeg mag ñu baax ñépp ci barke Seexu Canaba lu gën a nekk sama xel mi mooy ñun ay sëtam ak njabootam yépp muñ leen doylu leen gëm leen yàlla te xam yéen yéenay kan xanaa ku nekk ki la mag nga jox ko cër maa ngi sant ñëpp daal di sant suñ jaay di suñ papa muy sëñ Ibrahima Seck fépp féete nañu place bépp fépp fépp fépp féete nañu fépp daal tax na soxlawuñ ci kenn dara soxlawuñ ci kenn dara di sant sama bàjji nii toog nag maa ngi leen di sant bu baax di sant sama tantay yi ci kër gi sant sama ñoom maam ñoom yaa ngoma tan faatu maa ngi sant ñépp di sant nag Papa Babacar maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may wér salaamaaleykum wa rahmatullah man la may Seck doomu sëñ Ibrahima Seck man leen di nuyu bu baax di ànd ak yéen tiis bi sama maam na dafa nekkoon ku sori su ñun koo xamante ne dañoo bëggoon yamalewuñ ak kenn sama maam man li ma koy ñaanal rek mooy yàlla ko yàlla yaram saxaare ko aljana firdaws dama daan wax ñaar naan ma àdduna del sóoraale ki nga xamante ni bëggul mu gis sa naqar ak ki nga xamante ni day daw loo man lu manti metti ba kenn du gis sa naqar àdduna del sóoraale ñaar yooyu te bàyyi naa si xel bu baax te su ma woowee su ne ma may mu na ma xamante kii ku sori si man la maa ngi koy jàll nag Moodu Moodu ko ku sori woon si moom la Moodu sama mag ju baax la. li may wax rek mooy maa ngi ñaan sama papa sëñ Ibrahima Seck mu jiitu nangu bu mu geesu kenn bu mu déglu benn wax na jiitu ñëpp topp si moom maa ngi koy ñaan mu def ñépp benn say bu kenn xaajaloo ak moom ndax xam naa ni li li maam mébatoon yëpp yàlla na ko yàlla may kàttangum kaa àggalee loolu lañ koy ñaan te yàlla yàlla na ko yàlla dimbali bañ koy weer ak a weer. maa ngi koy jaal tamit suñ suñu suñu mag yeeg ñëpp di ko tàmbalee si ñoom Alsaan ak ñoom Pape Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi leen koy jaal ku xam na fi sa xol àggoon si maam suñ suñu maam bëggu woon dara leen lépp lu ñuy wax danaan fonk leen kàddu yàlla ak julli julli tamit lu ñuy sàmm chaque jour. mu ñu koy wax naan di leen julli julli ak ngor ak jaamu yàlla ci loolu lañu ñu yar moom la xam moom lañ mii bëgguñoo dem fenn dafa am benn jikko bu dul bi mu ñu yoree ndax ñun li jikko bu ñu yoree bëgguñu ko changé yàlla bu ñu ko yàlla yàlla bu ñu dem fenn ba seytaane man ñu bañ bañ lii ko bañ changé ko maam yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana cootu cootu jee mu nekk tamit weetu fa weetu fa ndax maam taalaang fa ñëppang fa suñ xel yi tamit mu ngi fa lépp suñ lépp a ngi fa jëmm jee nekk fii rek di wax waaye xel yaa yëpp lépp mu ngi fa yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana malaaka yër ma ne teeru ko yoy samaam seexu amadoy samaam amari ndaak samaam borom ñaari leer mamadi yoy samaam seexu amadoy

bëgg na ma. moom sa bëgg. lu mu la maa leen di leen ziar. sama ku baax la woon. ku dëggu. ku ñu daan dénk naan déedéet muñ. ñu naan ñu koy ñaanal rek fa mu tëdd yàlla ko ko yàlla na ko yàlla yërëm xaaree ko àjjana yàlla na ko yàlla dajale yonent bi sallallahu alayhi wa te mu gisalee ko Seydina Cheikh Ahmad Tidiane Sarif di ko ñaanal mu gisante pàppam Mam Talla dañu daan wax ñuy muñ tey doylu te dëggu te ñu des ak suñu ngor muñ ak doylu ak gëm dal ak gëm yàlla daan nañ tax dal nañ wax bés buñ génné aduna bu leen ma joy nak nag ta ñak waye suñu xol dina assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh man la mama Sarr di sët ci Baye Abdourahim Seck ak soxna sama maam Baye Abdourahim su fi dee wax duma fi jóge ndaxte moom nit ku la ku bëgg ay njabootam la woon sët ak doom yi ñoom ñëpp la yemale woon soo leen mësaana fekk ñu toog di waxtaan sa doo xàmme kii mooy sët wala kii mooy doom ñun ñëpp daal la boole daal yemale woon mooy li fi ñuy wax sànk rekk lépp loo xam ne daal góor war na koo dunde rekk lépp dañu ko daan dénk boo mësaan a tooga moom dala daan wax mu muñal goreel di la wax ngay fonk waxtu julli ku am diine la woon daal دين جاء من على كل الناس دين جاء من على كل الناس من دار يوم ما صرفات ما دي ساو يوم بمعو واو مرحبا والله باي أكبر مرحبا والله لنا خطنا سما مباتاي إني دوخ مام لنا خطنا سما مباتاي إني دوخ مام بار جمو دال مجي سامر لولو لاي ووتر جين أدنام سنكر لما فيكم mais bi ma ko yëgee daal doon lu ma naqari daal mais ñu koy sant yàlla ndaxte yàlla moom lu mu def rek looloo gën mhm. may jéggal na may nuyu suñ maam Asek moom mi fi yàlla teg ñu koy ñaana yàlla na ko fi yàlla bàyyi may ko wér gi yaram ak wér wérle yan bi yàlla na oyof ci kaw du nuyu sëñ Ibrahima Seck xalifa Baye Abdourahim Seck ndaxte moom baax na mooy loolu daal lépp loo xalaat luy si baax rek mu ngi si moom ndaxte kër gi xàmmewul doom ak jarbaat ak ñëpp ñëpp la boole daal njaboote leen ma koy ñaanal yal na ko yàlla may wér gi yaram ak gudd fan yal na ko fi yàlla bàyyi ba si kanam. waa waa Sams TV ñu ngi leen di ma ñu ngi leen di kontaan nañ si yéen daal di leen ñaanal télé bi ñoo xam luñ bëgg daal yal na leen ko yàlla def yal na bokk ci télé yi gën a mag. ndaxte fani dëj bi yëpp yéen a ñu ànd ak ñun ba sànq nii si cooti waaw di wax di wax njabootu Baay Abdourahim gi daal na ñépp bootu ci ginnaaw sëñ Ibrahima Seck lu mu leen digal ñu def lu mu leen tere ñu bàyyi ñu booloo nekk benn yàlla nañu saytaane cheikh yàlla nañu yàlla musal ci saytaane Ma yalla ka yaa khay ajra yalla ka yalla may ajna fi daws khamsa luguyu agras abdallah ku baax la ku bëgg ay njabootam la aan ko ñaanal yalla ka yalla khay ajra yalla ka yalla may ajna fi daws khamsa luguyu agras oo dong laa amoon may wax sunu maam ja dem na ko bëggee woon tadina dañoo na dañoo nax rek ba dem te bette na dañoo nax rek ba dem waaye bette na يبود يدي لم أصاحته منايا من ترين لخيا وهدو يتيق نتا حسن يتقيان الله الموت بقلب بكربي ويا ليتنا منا اغتراما بهدي يزيغ علينا الموت في جنب قربي ومن قصد المهبوب فلم يسل البقيا اللهم صل على محمد في المسجد وشفيع المصطفى في يا ربنا في أرضه وسمائه ويا ربنا في أرضه وسمائه أميتنا لا تصديقنا باستفائه فإنا رسول الأصحاب يهدى بذلك يشق علينا الهيش دون الآلهين إذا دين لم يكن فلا كانت دنيا لنا دين جاء من لا تلنا سا sawru faatu moo di saaw yoon wi moo aw waaw marhaban walla mamadi yoy samaam seexu amadoy samaam amari ndaak samaam yaay borom ñaari leen yooyu samaam Seexu Ahmadoy samaam amari ndaak samaam yaay borom ñaari lay lalaam mamadi yooyu samaam Seexu Ahmadoy samaam amari ndaak samaam yaay borom ñaari leer mamadi yooyu samaam Seexu Ahmadoy samaam bu leen fàtte abonné ci seen seen YouTube Shamsu TV jant bi leeral àdduna te activer cloche de notification boobee nabiyul huda fi naw mihi wanti baahihi alwa allaba akbar maam ahmadu ndaak mooy sunu sëriñ yàlla na ko jox muy sunu njëriñ nañ ko jàpp